bul fàtte abonné ci sa chaîne bii di ASG production ngir am xibaar yu leer te wóor ASG production moo leen di jaajëfal ci ànd bi ak safoor Mamadou Yadali rasulullah Serigne Abdoulaat rasulullah Serigne Abdoul Khadir rasulullah Serigne Abdou Rahman rasulullah Serigne Abdou Samad rasulullah Mamadou Murtada rasulullah yëkkati leen seen loxo rasulullah ñu màggal Serigne Saliou Mbacké rasulullah Serigne Saliou Moodu Moodu Moodu Moodu Moodu Mbacke mu bari ne بان لكل من له مقول أنا وسيلته والرسول نخم جيم سرين سالي نخم جيم سرين أيا قرب هذا العصر يا سيخي ساليو أيا مناوا ما ينال خطو ساليو يو سرين لا أنت لسي faaxal baraya bi suudi wa taqwa wal ixlaasu innaka saalihu yow sëriñ saalihu sajaayaka taqwalaayi wa sudi warida wa buluda wal xayru an safta saalihu yow sëriñ saalihu li nu neex ci yow doon nga sëriñ tuba ci biir doon nga sëriñ tuba ci biti awra sa qadimal mustafa saayiran wa batinan sayidan li lawli yaay innaka saalihu miftaahu jannati seex sal mbakke ki ko yor te ñëpp xam nañ ne diiwaan yaa di mbër mi fi ma jóg ca sant Cheikh Saliou ca mooy li ma war ndax cant mooy waral ndolleen alxuraan ko wax béy ci wilaayati Cheikh Sall Mbacké. yaay ki ko yaay fal te yaay folli. loo wax oh. yàlla daal di ne kun. amaana kuy bàkku Cheikh Saliou. Mm. moo ko jox la mu yor kum rekki say jàjj foo jëm kenn dootu la dar ma mm. taxawindu foofu ba ci kanam. barke la.